waaw ah, jàngat bi de kan sant rek la kontaan ci li nga xam ne madame la première dame defal nañu ko parce que xam na ne xam na ne mairie ñoo yore dëkk population ñoo jox mairie kàddu maire kàddu pour mu mun a jàppale population donc moom bu mu ko xamee dafa jàppale ay communes yu bare yàlla def Kaolack bokk ci mu jox ñu nag ay ndimbal yoo xam ne ay mat laa mi ngi ci ay ndox mu ngi ci kireen yoo xam ne bouteille 10 litres la euh, defe naa 600 bouteilles boo ko xoolee ci 10 litres ay 6000 litres d'eau la eau potable eau minérale def ci ay euh, gel hydroalcoolique def ci ay masque defal ñu ceeb defal ñu ay savon ay matelas defal ñu nag li gën a am solo muy ay oto yu ñu jox mu am 4 moto pompe yoo xam ne day liggéey pendant fukki fan wala lu ko ëpp ci commune bi dimbale ñu ba ndox mi jeex loolu ndimbal bu rëy la bu am solo la tey moo tax ñu def lii pour sant ko gërëm ko ñu ngi sant bu baax commune Kaolack mu ngi sant bu baax madame la première dame mais mën naa ne Kaolack yëpp ñooy sant bu baax madame la première dame te gis nañ ne def na ko ci yeneeni région def ko ci yeneeni région euh, ku ku gërëmul nit nag doo gërëm yàlla te nit ki bu la defalee lu rëy da nga ko war a delloo jukkal tey loolu la mairie Kaolack di def tey ànd ak conseillers municipaux yi mais d' abord ak adjoint au maire yi pour sant ko gërëm ko au nom de tout le conseil municipal ñu ngi sant bu baax madame la première dame ak fondation Servir le Sénégal. dama dégg fan yii yëpp am na ñuy laajte naan mairie bi lan la defalagum euh, population yi ñiy wax loolu dañu xamul lan mooy liggéeyu mairie liggéeyu mairie du jël rek ay bagages dem ci population yi jox leen ko liggéeyu mairie dafa war a nekk liggéey bu jiitu loolu yëpp. d'abord balaa nawet di ñëw mairie dafa am taxawaay bu mu war a taxawee mooy ñu nettoyer canaux yi yëpp ba mu set curage pour que ndox mi bu ñëwee mën a dem loolu prévention la mais am na entretien aussi nga xam ne ci biir nawet bi sax bu ñu gisee loo xam ne dafa jaaduwul ñu yëgal ñu ko mairie day dem dindi ko parce que équipe bi prévoir nañ ci loolu yëpp euh, ñuy waxaat ne ñu ngi liggéey ak ONAS régulièrement ndax tey regards yi yu yàqu yi

te nekkuñu ci liggéey population ñu ngi ciy liggéey ak sapeur pompier ñu ngi ciy liggéey ak ONAS ñu ngi ciy liggéey ak préfet Sinko bi nga xam ne mooy entreprise bi ñu fi ñëw di liggéeyal commune bi ci programme des dix villes moom it def na ay moto pompe 1200 mètres cube heure installé na ko préfet am na yoo xam ne installé nañ ko ak ak sapeur yi euh, site de pompage yi ñu ngi dox lépp la nga xam ne tey ñu ngi ko war a def pour toppatoo saytu population yi ñu ngi koy def en relation avec la mairie kon mairie appuie, am appui boo le ne la bu appui toujours la du appui bu ponctuel appui toujours la du tere nak, ñu listewaat nag ñi nga xam ne ñooy sinistré commission bi d'ailleurs defe naa liggéey na ba boucler liggéeyam mais day ànd ak sapeur pompier ànd ak action sociale suñu paree liste yooyu dañ koy valider pour wane ni ñoo ensemble ku nekk def sa cachet mu door a dem perception municipale xaalis boobu door a génn ñu jënd ko li liñ koy jëndee matériel pour jox ko population kon liggéeyu mairie gaawul comme liggéeyu ku dul mairie lii nag ndimbal la boo xam ne danañu dimbale bu baax tey bu fekkoon dañuy def 50 pour cent ci mairie yaakaar naa ne am nañ dimbal boo xam ne mën nañu yóbbuwaat ci 40 pour cent wala cinq ba ñuy espérer ne war nañu yaakaar ne ñi sinistré war nañ leen mën a dimbale ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom donc loolu lu am solo la. Euh, waaye liggéeyu maire yi nag du liggéeyu jël ay bagage rek ay mat matelas ay nangam dem di ko yóbbul population yi. li nga xam ne moom lañ ñu fi jox moom mu teg ci loxoom ñëw jébbal ko sunu commune bi muy am nañ mat la ñu ngi nii sunu ginnaaw ak yi nga xam ne ñu ngi ci magasin bi lépp lu ngeen gis fii nag échantillon la rek bagage yaa ngi fee ci magasin bi su ngeen paree man ngeen dem tamit ngeen visualiser ko wan ko askan wi yëpp ñu gis loolu ak 600 bouteilles de Kirène.